ahlan bikum fanweeru banque ak benn lañu caxat-caxatee ci fitna ñaxtu yi xamoon fan yi Sénégal allah le quotidien yéene kaay ne faaleen di wax bilan xayma yàqute yi xamoon ci réew mi bi nga xamante ne patronat bi ñoo ko def ayaw seetal téeméeri station essence fañ ko rajaxe ba mokk ñetti téeméeri doomu aadama yu doon liggéeye ca Auchan fi mu toll nii presque xamuñ liggéey chômage technique lañ nekk wéef bi ñu yónnee xaalis xaalis ñàkk na téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ya ci lim daan xam wàllu tourisme bi dem beeg dikk bi ci géej gi ñoom it yëf yi laal na leen enquête yéen kaay ne secteur privé bi kay ña ngay faj seeni góom yi nga xam ne ci ñaxtu yi la leen dale fukki banque ak ñeent xam nañ ci ay loraange ci fanweer ak benn yoo xam ne fañ leen a song lu ëpp ñetti milliards banque yi ñàkk nañ ko ci Auchan moom juróom-ñaari magasin fañ leen a song caxat-caxate leen ñetti téeméer ca ñu fa doon liggéeyee boo moytul fa ñu ñàkk seen liggéey Sonatel Wave ñoom it yëf fa leen a laal bay di aañ kenn ci kilifay patronat bi ne man defaa bëgg wax ne caxat-caxatee yàq ay entreprise privé képp ku ko def mooy fa ngay xañ ay sénégalais liggéey ak lu ñu war am yóbbu seen kër yi bés bi yéene kaay na CNP bi kay fa ñoo wax ne dàquñ sax njëgu dund yokk yokku info yéene kaay na ko patronat bi kay fa ñuy wàññi li ñu yàqule ak li ñàkk ci ñaxtu yi fi amoon xala ju du xaaj ju jeex la de ah, yaw seetal bay di añ fa wax ne xam na loo xam ne xel fa ko nangu te fa ñaaw te warta xam te mooy songu ay entreprise privé bi xalalu jàmbur di ko yàqate toj sàcc caxat gis ngeen lii lim nar a juróo Sénégal mooy crise goo xam ne moo nar a gën a garaaw sax crise corona bi donte ñoom patronat ba ña ngay wax pexe yi ñu war a jaar ngir génn ci crise ci wàllu koom gi Le Soleil yéen kaay na leen banque mondiale moom def na loo xam ne fa ñuy génne ci crise gi ngeen di wax noonu ah, yow seetal téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar ci ay milliards cent quatre-vingt-deux milliards ak lu topp moom la dimbalee réewum Sénégal laas yéen kaay na ko ndimbal loolu faxe suqali suñ koom bi dund ne askan wi yombal ko moo tax léeg si ko yéen kaay ne ànd ak coow li am Sénégal ak fitna jéeg yëpp terewul banque mondiale moom tey la gën a wóolu Sénégal moo tax mu dimbali ñu ci xaalis bu bari te faa leen di xamal leen fanweeri fan ci weeru soin wii ñu nekk danañ jot ci xaalis bi critique yéen a kaay ne banque mondiale kay fa déggoo ak njiitiram Macky Sall moo tax fa koo dimbale leer laneen lu leer ba yegg ca naññ ja moo ne procureur de la république fa bind ab bataaxal di xam ne na fa ñu hubbi enquête ci li xamoon ci réew mi fitna ji ak ñi ci teg loxo ba tax si du quotidien ne yëf yi kon jeex a gudde ndax waa Amnesty International ñoom it fa ñoo sàkk ci bi jaar yoon mbootaayu xeet yi waa ONU bànqaas ba yor xàq ak yelleefu doomu aadama ñoom i tamit fa ñoo sàkku ci ab enquête ñu xamal ko ci ñu faat ci réew mi enquête boo xam ne nag xamut par parloo léppay jaar yoon ña koy defit moom seen bopp vox populi ne mbootaayu xeet kay sàkku nañ enquête ci état bu ñu leeral ñu ñu fi rey regard yéene kaay ne mbootaayu xeet kay fa ñoo sëkkatal nguru njiit réew Macky Sall mi moom it fa wax ne fa ñuy xam ne mooy coow ci dëkk bi ah, yow seetal fa am ay vidéo yu ñu wane internet bi nervi yu yore ay fetal jëwriñ ji nee na loolu lépp nag fañ koy leeral turbine yéen a kaay na ko mbootaay xeet daal li ñu wax dégg ngeen ko mooy seize personnes yi dee faw ñu xam ñan ñoo leen rey njiitu jëwriñ ne Amadou Ba moom ma ngay dalal yëf yi fa demoon visité ji BRT ba indépendant yéen a kaay na mbootaay xeet yi fa kepp réewum Sénégal ci àq ak yelleefu doomu aadama yi nga xam ne fañ koy salfaañe l'observateur ne man faa tiit ci sama réew mi di Sénégal ndax jamono ji ñàkk ak kaaraange gi fa jéggi dayo te mbir yu garaaw nga fiy dégg ah <laughs> yaaw seetal fa xam benn terroriste boo xam ne fañ ko teg loxo fii Sénégal xamit ñoo xam ne fa ñuy financé xaalis bu bàyyi ko bitim réew ak force occulte yi menace dëgg moo xam ci réew mi fukki soxna ak juróom-ñeent teg nañ leen loxo ci ñaxtu yi fi xamoon ak woote fitna gi ci réew mi direct news ne jëwriñ ji di Victorine Ndeye moom it wax na la ko naqari ci ñaxtu yi fi xamoon ak ñi fi faat ak kàddu yi nga xam ne fay bodde ko wante ci biiru xeet yi nga xam ne xam nañu ko fi doon xamal loolu lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne diggante Khalifa Sall ak yeewi askan wi ha c'est fini jeex na takk source a yéen a kaay ñu ko xamal firnde yi nag mooy kilifa yi jiite yeewu askan wi fa ñoo xamal réunion altine bi weesu waaye fa ñoo écarté Khalifa Sall xoowuñ ko sa seen ma yéen a kaay bi ne Ousmane Sonko fa sàkk woon li ni mel te am na ko mooy gaay yi dajaloo te buñ ci boolee Khalifa Sall ba ci Barthélemy Dias sax communiqué bi waa yeew yi génnee mook sénégalais yi ñoo ko yëgandoor bés bi yéen a kaay waaye comme tontu du forox Khalifa Sall tontu na leen ah, yaaw seetal fa xamal waa yeewi askan wi na leen léelu ngeen def du dëgg yoon communiqué bu ngeen génnee te ñëpp yéen waa yeew yi li ngeen bëgg mooy yeewi askan wi ñu am benn xalaat rek ku wax wala lu def lu leen neexu rek ngeen ne déedéet pensée unique du fi am de lii yéen kaay ne diggante yeewek taxaw fi mu toll nii waxtaanu ñu tëx la de xamu déggante vox populi na xalifa kay tontu na yeewi tontu yi sax sàpp les ce que yéen kaay ne dialogue boobu nga xam ne nag moo féewale diggante yeewi ak xalifa ma fa dem ta d'accorduñ ci professeur Serigne Diop moom lañ tànnoon ngir mu jiite commission politique ba waaye fa bañ de nee na deew ma la tax mu bañ nag nee na mbiru boppam la du ko wax la mu ñu wax nag moom vox populi mooy ñaari député yu pur ya ñu tegoon nañ kaso ginnaaw buñ tëddee daan nañ leen tegoon muy juróom benn weer ya ci fàttali ñaari député yooyu fa ñoo dóoroon député ba ñuy wax Amin Njaay ñibi ci assemblée nationale keneen ku ñu teg loxo Basiru Jomaay Fay ak Waly Diouf Bodian moo tax syndicat impôt dowen fañ doon liggéeyee fa ñoo fas yéene amal ñaxtu geraw total ak le 16 juin ñu nekk l'évidence yéene kaay ñu ko xamal Dakar Express di ñu xamal na Cheikh Oumar Anne fa dajee ak waa sayems kusems lépp ngir ñu ci jàmm ak salaam turbine yéene kaay moom di ñu ne Bougane Gueye Dany fa dem seeti télé ba fa wax ne du dëgg du yoon jaay doole la ba tax fa yëkkati benn million jëndee ko benn journal wala fajiri ngir jàppale leen ñu ne déetewaay mu yëkkatiwaat benn million ak ñaar fukki junne yoo xam ne waa gëm sa bopp ñoo ko dimbalee wal fajiri muy ñaari million ak lu topp 24 heures yéene kaay ne wal fajiri nag porté nañ plainte état bu ndax seen télé boobu ñu coupé nee teguñ ko ci yoon libération ne xaalisu wal fajiri bi yi nee nañ fii ba benn fan bi dootu doxati fa